wajaal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateur u Ali Imran TV yéen ñi jàkkaarloog ñun ñu ngi am mbégte kontaan te fas yéene ànd ak yéen ci sunu émission bii ñuy wax ëttub jàngkat yi tey nag ñu am mbégte kontaan te fas yéene ànd ak Serigne Mouhamed Niang dëkk fële ca Parcelles Assainies unité 11 incha allah rabbi tey moom la ñu fas yéene àndal tey mu nekk suñu gan ñu fas yéene ànd rek tagg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama leen incha allahu rabbi mbokk yi bu ñu demee ba ci kanam tuuti it da ngeen ñu mën a dab ci biir képp koo xam ne rek jaar nga ci 88 628 11 00 incha allahu rabbi di nga mën a tàbbi ci biir jataay bi waaye laataa ñuy agsi ci loolu dañuy ñëw ci lii te mooy dalal suñu gan Serigne Mohamed asalaamaaleykum. Ah, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di bu baax di leen ziyaara di jiital ci suñu nuyoo bi ci suñu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mansour alxalifatul aam di tariqati tijaaniya di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ba ci kanam a kanam moom ak ay rakam mbottali mboolem mission bi nga xam ne seen maam tegoon na ko seen kaw di maam Cheikh Sidil Hadj Malick tabaarakallaahu buñ ci jógee nuyu suñu sëriñ di sëriñ Issa Touré di ko ñaanal yàlla moom yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam yàlla mottali mbooleem mission bi jaayante bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ci jógee rek daal di nuyu mboolem téléspectateur yi Ali Imran yëpp mm-hmm. ziyaar leen bu baax wàccee seen wàccee leen seen wàccuwaay di kontaan bu baax nag ci dalal gi ñu dalal tabaarakallaahu mm-hmm. di nuyu alxaaji Moor di la ziyaar bu baax tabaarakallaahu di la wàccee sa wàccuwaay di nuyu tamit ñu nu àndal tabaarakallaahu di xaaju Munir xaaju Aliou Guèye tabaarakallaahu ak xaaju Moustapha Ndiaye di leen ziyaar daal di nuyu mboolem képp koo xam ne rek yaa ngi toog sa télé rek di jàkkaarloog Ali mu TV ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar jërëjëf Serigne Mouhamed Niang ginnaaw nuyoo bu tedd bu matale boobu nga xam ne nuyoo nga ko ñu ngi lay massawu ci coono yi ak euh, naaj wu tàng week ak jamono ji ni mu tàngee waaye teewul rek ngeen xam ne toolub yenente bi sallallahu taala alayhi wa sallam la bépp jullit buñ ci woo rek nga war a wuyu te defe naa ne booy wuyu mbégte ngay àndal dëgg la Serigne Mouhamed bu ko defee sama téléspectateur bii jàkkaarloog yow daa bëgg a xam yow yaay kan maanaam sëñ Mouhamed sa biographie maanaam ah tabaarakallahu Mouhamed Niang ah seen taalibe la rek di seen nango di seen di seen jaam tabarakallahu maa ngi juddoo fi di Dakar eh, fi laa màggee fi laa yoroo tabarakallahu samay waajur ñu ngi cosaanoo nag ba Njàmbur tabarakallahu fa lañ jógee samay maam ak samay maamaati maam e mm-hmm. lañ nekkoon sam papa jógee fa daal di ñëw Dakar tabarakallahu mm-hmm. yàlla def ñu juddoo Dakar yoroo fi mm-hmm. jàngee fi sunu enfance yëpp ñu defee ko Dakar tabarakallahu bu ko defee rek ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi waat ñu ngi waat ñëpp di ziwaat ñëpp tabaarakallaahu. jërëjëf Serigne Mohamed Niang Serigne Mohamed Niang bu ma déggee waxam mooy Dakar fi la juddoo fi la yaroo fi la màggee fi la defee lépp lan moo la dugal ci tagg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. ah tagg yonent bi tabaarakallaahu sopp ko rek sopp ko rek nekkul na luñ doon mhm. ndax mosunoo am maam buy tagg yonent bi wala wajur buy tagg yonent bi. Mhm. waaye sunu papa moonu jur tabaarakallaahu daan ñu si nampatal nekkoon ko xam ne ku bëggoon jàkk la ku bëggoon daawura la tabaarakallaahu mu jël woon ak daal di may teg ci si loxo sunu mag Moustapha Ngiraan boobu mhm. amoon eh, ci kon ba daawura tabaarakallaahu boobu ñu ngi amoon ba âge mhm. nekk ay xale yu ndaw tabaarakallaahu mu yëkkatiñu yóbbu ñu ca daawara ba tabaarakallaahu ñuy ànd ak waa daawara bi ndam ndabi mhm. ba yàlla def daal suñu cofeel ci yonent bi fa la juddoo tabaarakallaahu di nuyu au passage Mouhamadou Moustapha Ngiraan nga xam ne moom jàngal tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko nuyu bu baax di ko ziar moom it tabarakallah ndortali naka la demee woon ndax jafe woon na ndax way jur yi leen nee nga ma ñoom ñoo la boole ak sëñ Moustapha Ngiraan mm. kon ñàkkul ni ñoom amoon nañ ci mbégte te doon la ci jàppale dëgg la dëgg la ndax maanaam tàmbali bi eh, nekkoon na lu yomb wala am na ay jafe-jafe yoo ci doon jànkoon amul amul benn jafe-jafe ndax tabarakallah Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp léppam Euh, euh, lu nooy la léppam lu neex la. Mm-hmm. tabaarakallaahu moom yonent bi tabaarakallaahu moo tax daal amu ci woon benn jafe-jafe tabaarakallaahu ñu nekkoon xale mu sabaa ngiram jël ñu teg ñu tabaarakallaahu ci wetam fu mu jëm ànd ñu ñun di ñu teete tabaarakallaahu ba lépp tabaarakallaahu ba léegi moom sax bu amee programme tabaarakallaahu ñun la yebal ñoo koy ñoo koy ñoo koy taxawoo. ndax euh, man na maa xam Serigne Mohamed wàllu njàngam ndax ci école bi la ca daara ja la wala njàng wàllum njàngam naka la doxee. waa jàng bi tabaarakallaahu eh, bañ nekkee xale am ay cinq ans six ans la ñu eh, daloon tabaarakallaahu daara mm-hmm. ndax suñu kër kër daara la woon. Mm-hmm. tabaarakallaahu dafa am partie boo xam ne sama papa du ko jëloon jox ko benn oustaz di oustaz Samb tabaarakallaahu maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar moom it moo ñu dalal tabaarakallaahu dalal ñu alquran ñu nekk ci di nab nabi nab nabi di nab nabi tabaarakallaahu léegi ñu ngi eggale ci euh, imaam maam Thierno Sall tabaarakallaa moom ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na suuf sedd ci kawam moo ñu eggaleel alquran bi eggaleel tàmbalil ñu ay téere xam-xam yu bëri ay xadis tabaarakallaahu téere fiq yu bëri moom moo ñu ko jàngal ci daaram ah tabaarakallaahu ma kimili ko nag ak école bi doon ko booleeg école bi su ma wàccee alquran dem école ba école bi yàlla def ñu am suñu bac ban amee suñu bac ñu ngi continuer tabaarakallaahu jaar nañ université def euh, un an jógee université tabaarakallaahu daal di dem def formation transport logistique et transit ñu def sunu première année tabaarakallaahu am sunu euh, nekk am sunu diplôme chef déclarant en douane jógee fa def sunu deuxième année am sunu diplôme d'état BTS d'état jógee fa nag ñu ngi nekk suñu suñu suñu licence 3 nii tabaarakallaahu jërëjëf Serigne Mohamed yàlla na yàlla barkeel euh, macha allah am na solo lool incha allahu rabbi dinañ dikkaat ci loolu lépp ma xam ba xam. boole école beeg daara ji naka lay doxee di tagg yonente ba noppi nekk ab étudiant mhm. naka lay dem incha allahu rabbi mbokk yi loolu lépp dana ci dit siwaat ak Mouhamed waaye balaa booba nag dañu ne ëttub jàngkat yi saxaar bu bu gaar nu muy def ah xanaa corne rek <laughs> kon sëriñ Mouhamed daa daal daal di corne rek bégal sama téléspectateur yi incha allah إن اتخذت إلى الرسول سبيلا فتشاهدا مأمون واللسان هل اتخذت إلى الرسول سبيلا فتشاهدا مأمون مأمون وترون ذلك طيبة مدوة وبرأسها نوره ليسان بلد به بحر الشريقة قد طمى عم البصير بلد به شمس النبوة أشرقت ولا ترى di afola baladun biyaatun nabi muhammadi usban wa amin bil madinati xeela مدد الدين علي والوى ما كان فيه قدر رجوع بكل سحب لم نسمح لهم بجميع سائل الديار هزيلا كل الأسائل لم تنقذ بلهم بل زادهم بين الورى تفضيلا بل زادهم بين تفضيلا مرزادهم بين الورى تفضيلا محمد بل زادهم بين الورى تفضيلا بل زادهم بين الورى تفضيلا بل زادهم محمد بن زاده بين الورى تفضيلا بل زاده بين الورى تفضيلا بل زاده بين الورى تفضيلا أرسله بين الورى سمجاني نرمي في علم بل زاده بين الورى محمد من جرنا بل زاده بين الورى سمجاني نرمي وحسابه بين الورى سمكان نجي من بلساده بين الورى رسول الله محمد الذي جلنا وإلى بين الورى طويلا بل ساد بين رسول الله محمد من جرمى بل ساد بين كسوف يمن بهرني سمحت توبا ساد رسول الله بين الورى لمجرمين نجر تنكير بل ساد بين الورى جرت انت جرنا ويبدأ يا رسول الله بين الورى من اليمين مزاده بين الورى فتسن بابك ودمني الله زاده بين الورى إلى الله ومن ومن ومن مزاده بين الورى جرنا روضته waaye ku yaakaar yaa rasulallah yi defal nii waaye jar na ko de iza hadisa sabida wi nabi يزداد في دوره تكميلا صلى الله عليه وسلم من يكون مجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له الحمد والإيجاب جل جلاله ونبيه وللنار من فضل المنير النواحي محمد الأمين ولولا لم تدر الخليقة قدره به بدا الله كنوز البوابيا وكان نبيا بي نبوة عالما من الماء والطين فوق والطين ساويا وكان نبيا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سيدي محمد ما شاء الله وي ما شاء الله defe naa ni tey képp koo xam ne yaa ngi teewlu Ali Imran TV sa xol sedd na ci woy yi nga xam ni woy nga ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama mu nekk daaj boo xam ne bu neex a neex la xam naa li ma la ci njëkk laaj rek mooy jëmmi xasida gi ku ko bind ak jëmmi daaj bi ndax daaj bi moom su ma juumul maa ngi koy doogu dégg man <laughs> bëgg naa nga indil ma ci ay gindi incha allah eh, tabaara tabaarakallahu way way way wiñ may léegi tabaarakallahu mi ngi nekk ci ibnu muhayid tabaarakallaahu ñoom ay mag lañu woon tabaarakallaahu à l'époque ñoom ñoo ko defoon ci yonent bi tabaarakallaahu di ko taggee yonent bi xam nga sallallahu alayhi wa sallam moom dafa neex a way wallaay wallaay tabaarakallaahu way wiñ fi teg nag suñu sëriñ tabaarakallaahu mhm. di suñu soppe mhm. di alxaaji Mouhamadul Mansour nga xam ne mooy bàyyu xalifa bi tey tabaarakallaahu moo demoon ca màkkatal mukarrama tabaarakallaahu jaar madina jàkkaarloog sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la jël abyaat yi tabaarakallaahu def ko fa muy ay bayit yu yéeme tabaarakallaahu ndeysaan euh, daaj bi nga xam ne daaj nga ko maanaam muy air bi nga ko jàngee. Mm-hmm. ndax man na maa xam ndax air la boo royaat wala daaj la bu jógee ci yow wala nu daaj bi dikkee. waaw tabaarakallaahu ñun tabaarakallaahu dañoo am benn référence ci tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy sunu wéyjur sunu papa sunu xarit Alxaaji Abdul Aziz Mbaye. Mm-hmm. tabaarakallaahu ñun moom dong la ñuy roy. Mm-hmm. moom dong air yi ñu woy fii tabaarakallaahu ay airam la. buñ fi jugee it air yu nuy way tamit ay airam la mm-hmm. tabaarakallaahu ku nekk jël sa air tabaarakallaahu wala nga euh, fent dala mm-hmm. loolu lu neex la tabaarakallaahu mais ñun yàlla daf ñu jagleel rek ñu bëgg Abdou Aziz Mbaye mm-hmm. tabaarakallaahu di ko roy lépp lu mu way rek tabaarakallaahu ñu ngi koy jéem a mën Mhm. donte mënuñu ko ñu ngi jéem tabaarakallaahu di ko nuyu nag au passage ndax sunu mag la sunu boy jur la sunu xarit la di ko ziar bu baax di ko ñaanal yàlla ndax sagu kër gi la tabaarakallaahu jërëjëf mbokk yi yéen ñu seetaan ci Ali Imran TV tey ñu ànd ànd ak Serigne Mouhamed Niang macha allah mu jógee ba Parcelles ni waaye ndeysaan yëkkati fii tagg yi nga xam ne tagg na ko yenente bi sallallahu taala alayhi wa sallam di wax mbokk yi rek képp koo xam ne bëgg nga ànd ak ñun ñu lay ni boo jaaree ci 88 628 11 00 di nga mën a ànd ak ñun 88 628 11 00 incha allahu rabbi képp koo xam ne rek eh, jaar nga ci di nga mën a ànd ak ñun ñi am rek mbégte kontaan te Serigne Mohamed ba léegi léegi bi ñuy waxtaan da nga maa wax ni yaa ngi université. nga mm-hmm. noppi di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñaari eh, mbir yooyu sa comportement ci wàllu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci colin wi ci waxin wi ci doxalin wi. Mm-hmm. ndax amul lenn loo xam ni indi eh, na ko maanaam tamit ak ak sa comportement ci biir école mm-hmm. ndax koy tàgg yonent bi am na comportement boo war a yor am na noo war a waxee am na noo war a doxee mhm. am na noo war a solo mhm. bu ñu waxee université tamit am na laneen lu fa lu fa lu fa lu fa nekk dëgg la maanaam loolu noo koy dundee tabaarakallaahu ah loolu jafe na jafewul tabaarakallaahu ndax boo bu nekkee da nga jël yonent bi rek def ko sa sa référence mhm. tabaarakallaahu feneen foo munti dem tamit yow dañ lay jàppee comme un référence comme tabaarakallaahu yonent bi moom lañ jël teg ko suñu kanam moom la bëgg moom la ñu roy tabaarakallaahu ci lépp bañ na ko booy tagg sa surtout maanaam ngay nekk koo xam ne nag da ngay tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga jullit ñi ñëpp dañoo war ñu bëgg yonent bi rawatina nag ki nga xam ne nag mooy tagg yonent bi. donc jikkoy Seydina Muhammad wa sallam eh, moom nga war a jikkowoo tabaarakallaahu mm-hmm. bu ko defee ci école bi buñ ci buñ nekkee ci eh, tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solu beeg comportement beeg acte yeeg parole yeeg yëpp tabaarakallaahu yooyu tamit la ñuy jël yóbbu ko tama tabaarakallaahu ci école ba nga xam ne foofu tamit dañ fay nekk ay royukaay mm-hmm. tabaarakallaahu man sama école ñoom ñëpp tabaarakallaahu ay imaam lañ may woowee yonent bi rek nag moo waral loolu tabaarakallaahu comportement yonent bi a roy tabaarakallaahu moom la ñuy jël tamit di ko jéem yóbbu tamit ci école bi di ko jéem a yóbbu ci université ba tabaarakallaahu macha allah am na solo xam naa sax suñu émission moom tagg yonent bi la ñu wax waaye comme que jàkkaarloo naa yow nga nekk université jamono yi maanaam yàq gi yàq gi étudiants yi xam ni boo déggee ñu ne toj nañ fee tey toj nañ fee toj nañ fële toj nañ fële yow nga étudiant nekk ci biir waaw tabaarakallah waral comportement boobu te yéen yaakaar naa ne ay référence ngeen ci yéen la war di di roy mais du du jekk du jaaru du dalal suñu xel tamit yéen ñi nga xam ne tey yéen a war a jiite réew mi ëllëg ñuy dégg ni toj ngeen restaurant bi baare ngeen tali bi damm ngeen robinet bi nangu ngeen micro wu professeur bi ak yu demee noonu. <laughs> loolu de xam nga jaaduwul. Hmm. ñun nag eh, eh, université dañ faa jaaroon rek def fa un an. Hmm. rek lañ fa def tabaarakallaahu si lañ génn. dem boole Liberté 6 di fa jàng ci benn école tabaarakallaahu. Hmm. moo tax li fay xew temps yi dama koy dégg rek mais mosuma koo assister. ndax un an rek laa fa defoon su ma juumul 2017 la xaw ma 2018. mais nag loolu nag tabaarakallaahu ñu ngi woo sunu étudiants yi. tabaarakallaahu lépp loo xam ne rek mer naqari na leen am na feneen ñu mën a jaar. ba ba ba tabaarakallaahu le président de la république réglé ko mais du ay du ay ay taal du ay yàq du ay du ay du ay nangu micro professeurs yi loolu tabaarakallaahu ñu ngi leen koy woowaat di leen ñaan di leen wax ne lépp loo xam ne métti na leen rek dañ ko ànd ci dal bu jalee sax ñu def marche def marche bu jëlee ñu jël suñuy baraza rouge taq nga xam ne am na lu nu metti tabaarakallaahu macha allah Serigne Mohamed euh, ndax euh, étudiants yi boo gisee ñu ci wax noonu sax maanaam dañuy ñoo xam ni sunu yaakaaru ëllëgu réew daa ak ci ñoom dëgg tey ci ñoom la ñuy séntu ay président ay premier ministre ay directeur ci ñoom la ñuy daal ëllëg développement réew mi jig ci ñoom kon ñoom itam ñu ngi leen di ñaax ndax dañuy wax ni sàkku xam-xam war bépp ndaw bi dox ndax sallallahu alayhi wa sallam nee woon na talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam moom farata ci jullit bu góor bu jigéen kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom itam suñu borom dimbali leen kenn ku nekk li nga bëgg sam njàng ak la cay sa jubluwaay yàlla defal la ko ci sëñ Mouhamed damay dikk ak yow ci wàllu programme yi mm-hmm. ndax sëñ Mouhamed dina am ay programme yoo xam ni day génn léeg-léeg euh, Dakar mm-hmm. wala moom basam daal Dakar la programme yi moom tamit yi ci ëpp yëpp rek Dakar la koy defee dëgg Euh, daanaka li ñuy suñu programme yi ëpp Dakar lañ koy defee mhm. mais tabaarakalaaw dañuy faral di génn lu bëree bari nag di dem lu ci mel ne ay Thiès ay Tivaouane ay Kaolack mhm. euh, ba ba ba ba ba Saalum dëkk yooyu yëpp tabaarakalaaw dañ fay am ay programme mhm. dañ fay am ay programme yu bëri ay Saint-Louis yooyu yëpp mais nag suñu accès nag fii la nekk moom mooy Dakar ku bëggoon a jot ci Mouhamed Niang ginnaaw ba mu jàkkaarloog moom mu jàngal ko njàng mu neex mu am solo nii ku bëggoon a jot ci moom fan ngay jaar ban buntu ngay jaar ak ndax moom ay sartam <laughs> diis na wala moom diisul lool. Eh, boobu da ngay jaar ci sunu mag rek ci sunu kilifa di xaaj Moustapha Ndiaye. Mhm. nga xam ne moom moo yor groupe bi mooy kilifa gi mooy moo man ba ma soxlaa sax jaroon nga may woo boo mu Moustapha rek tabaarakallahu moom mooy xam programme yi moo woowee rek ma am nañ programme fii tabaarakallahu ci laay soog a jug ànd ak ñoom. bu ko defee rek da ngay jël numéro ci neuf cent euh, soixante soixante treize neuf cent. luy jiitu. Euh, neuf cent soixante dix sept neuf cent dix. Mm-hmm. quatre vingt onze soixante neuf mooy numéro Moustapha Ndiaye. képp koo xam ne bëgg nañu jot rek mën nga ñu woo ci numéro Moustapha Ndiaye boo insister jotoo ko nga soog noo woo nag suñu numéro ndax ñu ñooy deuxième position. di soixante dix huit quatre cent soixante onze quatre vingt sept treize. ah bu ko defee nag ñun moom dañuy tagg yonent bi tabaarakallahu te yàlla tax. Mm-hmm. dañ koy tagg di ko tiitaroo ut ci plaisir. waaye utuñ ci koom nag. jërëjëf Serigne Mohamed loolu am na solo tagg yonente bi moo gën a noobul ci àdduna lu nit di def rek. Mhm. tagg yonente bi moo këpp solo ndax li ma doon wax ci émission bi wax naa ko fay yoon yoon dama ne ñun ñëpp yàlla moo njëkk a tagg yonente bi. sa alayhi ndax tagg na ko ci alquran. te koo xam ni bu dutoon ak moom tey ñun ñëpp ëllëg sawara lañ jëm mën naa ne. wallaahi ndax bi mu ñëw fekk na àdduna bépp fees dell ak ku réer mu ñëw indi fi leer gindi ñu tegaat ñu ci yoon wi nga xam ne mooy siraatal mustaqim mm. kooku Moustapha alayhi salaam ñun ko war a tagg ku ko munta taggit ku munta yéeg war a mën a bés ku daan dëgg la ku mun di tagg yonent bi yéen ñi koy tagg nag ñu war di leen teral di leen jàppale di leen di bu baax a baax mm, ndax kuñ toppatoo rek toppatoo leen moo gën a war kon mbokk ba léegi rek ñu ngi di leen xaar ci 88 628 11 00 bu ko wi da ma ko indil ci jataay bi incha allahu rabbi ànd ak sama gaa yu baax yi nga xam ne moom macha allah ñoom itam xam naa maa ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen jàmm. amiin yaa rabbi ju baax lañ. وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار في إلهي وجزينا أبدا أن محمدا المختار في الخدم jërëjëf Serigne Mohamed mu mel ni daa mbokk moo xam ni mi ngi tàbb ci jotaay mbokk mi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. El Hadj Mor Mbaye. Serigne Ibrahima Diop. maa ngi lay ziar bu baax a baax noo def ak coono yi. sant yàlla bu baax a baax ñu ngi lay ziar bu baax. ndax ido yi ndax waa kër gi baax ñu ngi si jàmm. waa ñu ñu ngi sant ñu ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah. maa ngi nuyu jëwriñ jooju dend yow. ndeysaan. ñu ngi lay fay bu baax tabaarakallaahu sëñ Ibrahima. di la ñaanal suñu borom dafa ko jàmm ak xëy sutura. allahumma amiin yaa rabbi allahumma amiin ko ñun ñëpp tabaarakallaahu. te suñu borom juree la ñu topp ci ñun ñëpp ak suñu tuwaa. allahumma amiin allahumma amiin yaa rabbi waaw yow mi nga nekk nit ku baax boo xam ci moom macha allah daal. ndeysaan ndeysaan jërëjëf. waa Faral bi ñëpp ñoo ngi nuyu di la bëggee. ndeysaan jërëjëf nuyul ma ñëpp nuyul ma ñëpp. ñoom bàcc ñoom Samba mu lay jóg ñoom baax a baax. ndeysaan macha allah sama xol sedd na macha allah. waaw sama gars yëpp ñu baax a baax. ndeysaan nuyul ma ñëpp nuyul ma ñëpp macha allah nuyul ma ñëpp. di ñaanal jooju ngeen ne suñu doon dafa ko jàmm yokk gën a wéy baat bi te neexal baat bi. allahumma amin allahumma amin allahumma amin yaa rabbi allahumma amin yaa rabbi. kon daal leen trop te yaa am trop di dugg suñu taw yi. ndeysaan ñoo gën a bég ñoo gën a bég ñoo gën a bég. alhamdulilah yal na yàlla doon jàmm si biir waay. allahumma amin yaa rabbi allahumma amin. ok jërëjëfati waay. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf. allahumma amin wa iyyaak Euh, jërëjëf kooku doonoon Ibrahima Diop ñu di ko nuyu di ko ziare bu baax a baax di nuyu waa barab ba nga xam ne fa la nekk ñoom mu lay Diop di ziare bu baax a baax sëñ baat ci jaaxu ñoom di nuyu bu baax a baax sëñ Daouda ak sàmba Samba sëriñ Abdoulahat Euh, ñoom suñu àll sàmb ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara tey jéggalu rek ndax xam nga mbokk yi nga xam ni nit euh, bu doxee rek ba jënd crédit wallaahi la te a da ngay ne ci yoon yi ba ba euh, am nu mu moo tax ñu ngi jéggalu bu baax a baax ci njàng mi niñ ko niñ ko niñ ko dogee waaye ñu ngi ci tuubaat bu baax a baax rek xam naa di wax rek nga delloo buum ca mbooy mbooy gi incha allah wasalli ya ilahi wa عنا محمدنا المختار في الخلال صليا يا إلهي وجزيا آمانا عنا محمدنا المختار في الخلال إن الرسول بقادر مرسل حتى

محمد ربي فالماء نور العالمين كما على ضياء يرى ساكت على تحمل فتي أو سماوات وقد كان يسمع أو قال آتت بلا حادث ولا ساحر إنما فتنة وأمرني بالمسيح يا إلهي وجزيا أبدا على محمدنا لوى مختار macha allah macha allah macha allah macha allah salaamaaleykum mu mel ni am na mbokk mu ne ci ligne bi maaleykum ku baax nu ngi ziare bu baax tur wi ak. faral di nuyu Mbaye Bac Diakhoum Rydhi. dinaa di gantaan ana ñu ngi lay nuyu te di la ziare. ñu ngi lay ziar biir. yàlla yàlla nangu ziar bi. naka foofu naka daara ji. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax yéen a ngi topp émission bi. waa ñu ngi baax moom ñu koy teel baax. ah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. waaw ñu ngi leen siyaare yow ak eh, sama sëriñ yow di toll si plateau bi. léegi ah, moom macha allah moom de macha allah wax dëgg jàng na fi jàng mu neex lool de moom. moom laa doon déglu sànq léegi. ndeysaan ndeysaan macha allah. macha allah jàng jàng koy yàlla yàlla wéral baat. allahumma amiin yaa rabbi allahumma amiin. Eh, yokk fan yi mu gën a gudd ak ànd ak wér wér la. amiin allahumma amiin yaa rabbi allahumma amiin. macha allah monsieur Adama Amady. jërëjëf jërëjëf suñu baat jërëjëf. yàlla yàlla dafa béy wax. allahumma amiin yàlla dafa leen jàmm allahumma amin ya rabbi allahumma amin day naan seen kale kale bopp di ci man di invité gars yi vraiment lu ñu def nax na de allahumma amin waay allahumma amin waaw lu ñu na trop na maa yaa ngi fi moom waaye moom danaa mm-hmm, eh, da nga doon dikku baax quoi da ngay suñu waay lool ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf waaw boo ñu la lañ lay wax waaye mooy loolu rek. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. nga doon ci baax ndeysaan jërëjëf. waaw di yàlla yokk la bu baax a baax. allahumma amiin yaa rabbi alamin allahumma waaye waay. yàlla kontaan nañu ñëpp nag. jërëjëf jërëjëf sëriñ Bathie Diakho fële ca Medina di ko nuyu bu baax a baax di ko ziare di nuyu tamit mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon jaar ci téléphone bi fekk sëriñ Mohamed di jàng émission bi nag ndeysaan léeg-léeg rek day xaw a doy waar ndax njàng la téléphone yi waaye xam naa incha allahu rabbi dinañ gën a xalaat ba xam nañ a organiser ba nga xam ni dinañ ut boo xam ne rek buñ fa àggatee ñu arrêté njàng mi téléphone yi di dox nga xam mm. la njàng mi moom diggante bi téléphone yi moom ko ndax kenn ni ma a metti lool moo tax ki bu ci insisté rek ko te it way yi ndeysaan dana toll xam ne nga daggee ni ku doon lekk ni téye sa loxo ndax nañ li ci nekk mm. jàngkat léeg-léeg dina toll foo xam ne boo téye loxoom Euh, mi ngi mel ni kuy lekk rek ñu téye sa loxo macha allah waaye di leen nuyu auditeurs yi nga xam ne tamit wala téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy safoo di ñu bàyyi xel dem bay jënd seen crédit di di di di di di nu woo. macha mm. allah loolu day lu am solo ndax nit boo nekkee ci dara nit ñi wan la ni ñu ngi ci ànd ak yow. Mm. dana tax nga gën a nga gën a. dëgg la dëgg macha allah Serigne euh, Mohamed xam naa ni incha allah rabbi njàng mi moom moom la ñuy tëjewaat. Mm. ndax moom duñ ci doyal. tey defe naa ni mooy li tax émission bi jóg. dëgg waaye da di nag mbokk yi tamit dañ ci am laaj. dëgg la dëgg la yaa ngi mm. doon jàng ngeen xasida. maa ngi doon jàng tabaarakallaahu sunu xasida maam sunu xasida sëriñ. Cheikh Seydil Haaji Malick. radiyallaahu taala anhu wa nafaana barakaatu tabaarakallaahu ci mbindam ci téere bi ñuy wax xilaasu zahab. xilaasu zahab. tabaarakallaahu fii siirati xayril arab. Mm-hmm. tabaarakallaahu nga ñu ngi koy a xamee ci miimiya. miimiya. nga xam ne lépp yonent bi daal dëxañ na ko ci biir. ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam lépp yonent bàyyiwul dara Sir Xaaj Malik yàlla nañ ko yàlla fayal. allahumma bi. dem nañ ba ne boo jëlee xilaas zahab bi sax tabaarakallahu def ko sa nekk. boo bu la neexee nga waat ci yàlla na yàgg yonent bi yéen a fanaan. ndeysaan sikk amu ci tabaarakallahu yàlla nañ ko yàlla fayal suñu maam Seex Sir Xaaj Malik yàlla nañ ko yàlla fayal. ya rabbal alamin ndax li yéeme mooy seen dund gépp ñoom dañ koo jeexaloon ci liggéey sallallahu alayhi wa sallam doon loo xam ne képp koo xam ne rek soq koo nga ci ñoom wa nga wala nga leen di nga leen di tuddoo laay wax dëgg la war ngaa xoolaat bu baax a baax ñoom seen doxalin dëgg la seen melokaan dëgg la maanaam ni ñu ni ñu meloon dëgg la ñoom seen lépp lañ jëloon jox ko yeneen defuñu ci woon dara dara ci moom la ñuy xëy ci moom la ñuy gont dëgg la suñu bindee mu feeñ ci mbind mi mm-hmm. suñu waxee mu feeñ ci seen wax boo déggee ñee ne la sëñ diw nee na mm. te muy kàddu mag ña mhm. su kàddu gi daanoo rek da ngay yéemu ci yàlla de am na lu fi jaaroon loo xam ni baare woon na liggéey lu bari maanaam ñu koy wax covid ba léegi mi ngi fi sax ñuy ñaan yàlla mu jëlee ko fi allahumma amiin ngeen ko dunde woon yéen jànkat yi nga xam ne maanaam seen yëngu lépp ci dajale mbooloo la tabaarakallah xëy na leen toog leen wax leen a woon na trop nag métti hmm. woon na trop ndax koo xam ne tabaarakallahu Eh, dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko tagg mm-hmm. bu toogee ay weer mm-hmm. taggul yonent bi sallallahu alayhi wasallam bégalul nit ñi ci yonent bi mm-hmm. day am lu muy def ci moom mu met mu nekk lu metti nag lool tabarakallahu mais ñu ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla na ko fi yàlla teggi bi jaay yonent bi sallallahu wa na ci gaa yi yëpp nag métti woon na waaye nag ñun tabarakallahu tëkkat seena Muhammad yi yàlla moo leen yor ku foog ne yaa leen yor rek da ngay nax sa bopp yàlla moo ñu yor tabarakallahu lu ñuy am sax di ko yóbbu suñu kër yi daanaka du duñu ko jëlee ci tànt yi ndax bu buñ duggee ci tànt bu nu génnee balaa noo génn joxe lépp ndeysaan leneen lii ñëw doo xam sax fu muy jugee ndeysaan moo tax ay tànt yi tabaaraka ñu yoruñu yoruñu tabaarakallah bu ko defee rek loolu métti woon na nag torop nag ndax ci ci cadre bi may waxee mooy cadre nam mu bi nam ma bëggal nit ñi ci yonent bi ak bëgg a jàkkaarloog soppe yi te doo ko am mais bu dekkee cadre koom gi tabaarakallaahu ñun lu am ñu ngi koy jëlee yàlla mu ngi koy ñu ngi koy wërsëgalee feneen tabaarakallaahu macha allah macha allah mm-hmm. sëñ Mohamed noonu rek laa ñëwee ci sama mm-hmm. maanaam macha mm-hmm. lay awoo maanaam déggoo bi ci am dëgg la ni dara du déborder lépp day tege fa mu war a tege ndax xam nañ ay woy macha allah dëgg la waaye lépp day tege ci yoon maanaam nga xam ni fi kii kii di bàyyee kii jël ak maanaam macha allah dëgg la naka ngeen di doxale seen groupe bi ndax am ngeen ay jours yi ngeen jàpp di répété dëgg la wala naka ngeen di doxale groupe bi ba maanaam déggoo bi di maanaam ci biir njàng dëgg la dëgg la tabaarakallaahu eh, ñii dañuy nekk sama rakk tabaarakallaahu di ma jàppale ci way mm-hmm. benn ko bi li may def ci way sax ñoom lu ko raw la ñuy def ci way bëgg way neex. ndeysaan macha allah. boo gisee ñun suude woo rek da ngay foog ne sax ñii dañuy toog chaque jour di répété. te daanaka ñun duñu amul amul amul répétition. ndeysaan amul répétition ndax ñoom tabaarakallah danoo mën a way danoo mën a way xaaj Munir xaaj Aliou xaaj Moustapha Ndiaye chaque jour nag ñoo xam ne ñoom ngay àndal ci programme yi mm-hmm. fuñ la woo nga ànd ak ñoom dangeen ngeen dem ba da ngeen di déggoo looloo waral euh, su ma wayee rek ñoom xam nañ fu ma jëm tabaarakallahu mais duñ sax duñ sax répété duñ sax répété seen digganteeg tàggkatu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ni ñu ngi biir parcelle wala nekkuñu parcelle mm-hmm. ñi nekk ci ëttu Cheikh Sidi El Hadji Malick ak ñi nekk ci ëttu maam Borom Touba wala maam mm-hmm. Limaamu wala maam Baye Niass wala yeneen mag ñi dëgg la digganteeg ñoom sa relation moom ndax dem dem lante beeg dikkalante bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi am ni mu war a am waaw mi ngi tax bu baax a baax a baax a baax euh, maa ngi nuyu au passage euh, sama xarit nga xam ne tax ma ñëw fii di Alxaaji Mbàkke Touré Mbàkke Touré ñu ngi koy wéykat bokk ci kër maam borom Touba radiyallahu taala anhu mm-hmm. eh, moom moo eh, waral sunu teewaay fii tabaarakallah eh, relation bi ñu am nag relation d'amitié la mm-hmm. relation bëggante te yàlla tax jàppante ndax koo koo ci gis rek da ngay jàpp ne sa bopp nga gis moo tax daal tabaarakallah yi may dégg yëpp ñi koy wax ci tagg yonent bi souvent di ko wax naan danoo siis wala danoo lii man dajaguma ci daal. déedéet dajaguma ci ndax. kuy tagg yonent bi yooyu kuy nekk ci yow. dajaguma ci. koo ci daje rek dalay bëgg jug taxaw ormal la accolade la ziyaar la muy laayoon bi muy murit bi muy tiijaan bi. di nuyu sama xarit boole laay tabaarakallaahu di ko ziyaar moom it bu baax a baax. bokk ci kër maam li maamu laay di sama xarit. ñoom ñëpp ñun daal bu ñu dajee daal dina ñëw dina ñëw incha allah incha allah dina ñëw dina ñëw <laughs> bu ñu dajee daal day rafet rek ndax sunu mag ya ba ñuy ànd noonu lañ àndee woon donc ñun tamit bu ñuy ànd noonu lañ war a àndee tabaarakallah macha damay wax ni tàggat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo ci gis rek muy dox di dem jërut mu naan la man tàggatu yonent bi comportement am rek mm-hmm. soo ko xoolee rek xam ni ki tàggatu yonent bi dëgg la gi dëgg la ak dal gi ak service gi ak lépp. dëgg la ndax ñoom loolu yàlla moo ko moo ko def. dëgg la kon damay wax ni rek yéen ay modèle ngeen. dëgg la ay ay ay royukaay ngeen. la moo tax ku ci dëkk ci koñ. war ngaa xoolaat bu baax a baax sa sa taxawaay sa doxali ndax ñu bëree bëri dañ lay bàyyi dëgg la léeg-léeg nit dina la bàyyi xel te doo xam ni sax mi ngi lay bàyyi xel. dëgg la euh, sëñ Mohamed xam naa question bi ma bëgg a rek mooy li nga xam ni xew na léegi jànkat yi di ko def maanaam génne lu mel ni clip yóbbu ko ci télévision yi wala yu mel noonu ndax loolu xalaatagul ah, de lu baax la. Mhm. ndax képp koo xam ne rek yaa ngi yëngu ci benn mbir da nga ciy ñaan yàlla yàlla di la ci defal ay ay ndam. Mhm. nga ciy avancé. Mhm. waaye nag loolu yàlla dogal na ne yëngooguñu si. yëngoogu leen waaw ah, dañoo amagul suñu liggéeyu kilifa. ndeysaan muy xaaja Abdou Aziz Mbaye. ndeysaan moom wax la waxoon naa la ci biir wax ji moom la ñuy roy ci lépp. fu mu teg tànkam fa la ñuy teg suñu tànk te ba mu daawee woyal Alaaji Abdu ba léegi nag mosuñoo gis mu mu mu génnee clip wala mu mu def dara tabaarkalla bu ko defoon tey suba suba suba gannaaw suba ñun dinañ ko jéem a def ndax moom mooy suñu royukaay waaw mooy lu bare bare bare moom Alaaji Abdul Aziz Mbaye ñu di ko ñaanal suñu borom guddal fanam amiin yaa rabbi wéral taxawaayam ci lislaam amiin taxawaayam ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe naa kenn du ko werante dëgg la sa digganteeg moom seen relation yéen ñaar ndax ndax léeg nga gis ko wala léeg-léeg nga seeti ko dëgg la ginnaaw moom ngay roy mu tegaat la ci yoon defee nii bàyyi nii wala gise bi euh, maanaam mi ngi am wala amul dëgg la gise bi mi ngi am bu baax baax mu nekk suñu xarit nekk suñu lépp tabaarakallaahu xam naa bu doon nekkoon mi suivre émission bi sax dafay woote ndax bañ ma mujjee invité tabaarakallaahu ci télé asfiya yi dafa yëkkati téléphone am woote en direct ne way wi jaar na yoon waxtaan wi jaar na yoon ñu ne ko kañ ngay ñëw ci émission bi mu ne Mouhamed bu teewee man la teewal ndeysaan du ma ci mus ñëw. donc kon xam nga ne kooku relation boobu relation bu yaatu la. di ko nuyu bu baax nag di ko ñaanal yàlla ndax nag moom la ñuy tiitaroo moom la ñuy sagoo. moom la ñuy sagoo sago kër gi la ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam mu ànd ak wér lool nag. allahumma amiin allahuma jërëjëf Serigne Mohamed Niang jërëjëf mbokki téléspectateur u Ali Imran TV yéen ñi jàkkaarloog ñun ci Ali Imran TV am mbégte mu yaatool ak kontaan te yaakaar ne nag euh, tey bég ngeen macha allah ci way yi nga xam ne dégg ngeen ko ci Mohamed mu mel ni nag euh, waxtu wi mi ngi dem bu ko defee nag incha allah rabbi moom comme que gars yi ngi leen doon may espace ngir di leen digluwaale tey nag moom dañuy duggaan nag ci taggaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, xam ne rek mooy woy bi nga xam ne moom la ñuy tëjee sunu eh, sunu jataa incha allah. Mm-hmm. mooy doon woy wi nga xam ne moo ciy mujj. Mm-hmm. nga xam ne bu buñ ca jógee rek bu ñu dellusiwaatee mën a dugg ci xeetu tàggatoo bi mm-hmm. demee noonu. Euh, bu ko defee nga xoolaat rek ba xam fan ngay génn da ngay dellu ci taysiir bi ndax foofu moom baaxoon na lool. <laughs> fi ma nekkoon fooy dellu waaw. <laughs> ci xilaasu sëf la ne waa xilaasu sëf bi. waaw xanaa ñu mën si suuf rek daal di tëjee Cheikh Tidiane Chérif. kon jeex na radiyallahu taala loolu baax na jugee ci xilaasu jeex na jeex na ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam tëjee Cheikh Ahmed Tidiane jeex na loolu allah jeex na jeex na <laughs> bismillah. ay Mustafa xultul hadilata aw baylul hamamata أو جمع فقل فقه حين نناسيه وصليا يا إلهي وجزيا على محمد ابن المعتاد من مولاه طيب فكلوا فوقه خلال الأمطار سليم خير من ذا المكان شيخ سيوح العينبي أبو الهنود عزتي إلى العلي وسيلتي من بدون قدوة من غيره ختمتني loola. Cheikh Seydi Ahmad Tijaani ku fi indi leen mbiram bi nga dem la jaajëf sa téere bi na nuy sa baat na nuy te doo naan Cheikh Tijaani xarit kaay ma wax la samay maama yi ci askanu leer laa juddoo bis ni tey te Maodo nijaayam nijaayam borom xeeti borom xeeti xaali xaali Cheikh la tijaani fi a'la man ma laa wa hum min ma laa ma laa ilaaha wa hum ma laa فيزيد ليس من باب ترزه وإيمانا إلى الدرجة المسايا أيوة الحمد لله هذا شيخنا خير الأمور الذي أعلاه مولاي bayu sëriñ jooni sëñ Babacar Seex way maana ila jërëjëf bay alifa way himmatin aw bihi xaalun xaala tarbiyatan nicmal murabbi muridul xaqi yarda جميل سن بابكر زيه وإيمانا إلى جرجة ميل خليفة ويسق المريدين من كاسم سول إلى محي المرادين الذي قد كان مأواه المريدين وصول إلى محي الذي قد كان دفنا لنا للخنا فقد ساعته راسته أتاه خبر من رحمن والدار أو قد ساعته راسته أتاه خبر من رحمن والدار شيخ مخوتاته أتاه ختم سيدي بابكر من أتاه ختم من رحمن والجاوي الله ختم سيدي أبو بكر من أتاه ختم من صفوف بابكر الله أتاه ختم سيدي ربنا كرم من أتاه فضل من الرحمن أول خبر برم بنكار بنين أتى خبر من الرحمن خليفة أو أشباه الوضوء في آفاق منهمر لما أصبح الناس غرقا في الرواو أشباه الوضوء عظيم هنيئا ما أصبح الناس صدقت فيه جدوى أي دخل فيه جدوى جدوى شختي جمشير ما ديمان فيه جدوى فيه جدوى وفيه جدوى شختي جمشير ما ديمان فيه جدوى شختي جمشير شريفنا الإمام في الجواب سيدنا sëñ Ndeye Mansour. ey sama waa ji Mamadou Mansour. Alaaji Mansour. baay sëñ Ndeye Mansour. Mansour rango ndee li nii. yaa rango barka ca Maodo. muñ nga yaa muñ bal xaw mi. sëñ Wallaaya. mooy sëñ Ndeye Mansour. Alaaji Mansour. sëñ Mbay Mansoor Mansoor yaay baayu sëñ Mbay moo ay neef ay dama dama rahmaani sooral ba xaw ma soorin wal mooy baayu sëñ Mbay Mansoor Alaaji Mansoor baayu sëñ Mbay Mansoor منصورا كل من فيه جدوى جدوى جدوى يا سيدي منصورا فيه جدوى خلفا ويسم الصلاة وسليم الإله على خير البرية أمنا تحيا وأنا ndeysaan macha allah macha allah Serigne Mohamed Ndiaye macha allah maanaam euh, tey ñëpp la seen xol sedd way daa tege fa mu war a tege macha allah lépp lu waram tim jàng am na ci yàlla suñu borom gën a wéral baat bi baat bi neex na macha allah dégg gaa ngi fi. macha allah daal la na la yàlla àggale na. amiin amiin xam ne rek dina gàllankoor doomu adama ak lu doon yal na lu ko yàlla. randalal allahumma amiin randalal ko mboolem ñi nga àndal. allahumma amiin egg rek ngeen egg. amiin xam ne rek tàggkatu yeneen tamit mos na faa àgg rek yal ngeen àgg. foo xam ne amiin yaa rabbi amiin macha allah suñu xol seet na loolu. bu ko defee nag dañuy ñëw rek euh, wax la nga daal di nag nuyu mbokk yi xarit yeek sopp yeeg am gi jàmm yi nga xam ni. ñooy mm. topp Serigne Mame Mène Niang di ko mm. bégee. Mm. mu baax nag léeg-léeg boo amee bis yu mel nii nga nuyu leen. tabaarakallah ko defee ñu daal di ñëw nag euh, tàggatoo bu dul tàggatoo incha allah. tabaarakallah tabaarakallah ah dañuy nuyuwaat mbokk téléspectateur yëpp rek tabaarakallah képp koo xam ne rek yaa ngi toog jàkkaarloog sa télé. Mm-hmm. wala nga jàkkaarloog euh, mm-hmm. euh, tabaarakallahu YouTube bi. Mm-hmm. wala nga jàkkaarloog Facebook bi di seetaan Ali Imran ñu ngi lay nuyu. Mm-hmm. di la ziyaar di la wàccee sa wàccuwaay yu gën a tedd di nuyu suñu waajur wu jigéen di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam bi jaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu waajur bu góor yal ko yàlla xare aljanna di nuyu nag sama bàjjan bu baax a baax a baax a baax di Adja Ndeye Fall di ko ziyaar di ziyaar sunu taawu kër di soxna Aminta Ñang moom it di ko ziyaar bu baax a baax a baax mm-hmm. ziyaar soppe yëpp nag képp koo xam ne soppe Mouhamed Niang nga rek ñu ngi lay nuyu eh, nuyu sunu sëriñ sëñ Issa Touré mm-hmm. nga xam ne moom moo nu yar ci lii moom it ziyaar ko bu baax nuyu nag ki ñuy jàngal tagg yonent bi moom laa la doon wax sànq muy alxaaji Moustapha Ngiraan mm-hmm. daanaka nu nu mel ñëpp nu nu mel rek moom la ndax moom moo ñu jël jàngal ñu tagg yonent ba pare nekk nag nit ku civilisé nekk chaque jour day moom li muy incarné mooy chaque jour day incarné Euh, euh, ay valeurs day incarner ay valeurs tabaarakallaahu par ses actes et par ses et par ses euh, paroles aussi muy alxaaji Moustapha Moustapha Ngiraan moom moo ñu lii moom mi ngi nekk comptable Sénac ba pare di tagg yonent bi tabaarakallaahu moo ñu yarti lii ñu ngi koy jaare au passage di ko nuyu di ko wàccee wàcc waaye gën a tedd muy alxaaji Abdul Majid Dramé moom it nga xam ne sunu xarit la <laughs> buñ mu nee daal dañuy jiw waaw baax du ngeen ma maanaam Adama Ba sama xarit sama soppe moom it maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax mm-hmm. képp koo xam ne daal soppe alxaaji Mouhamed Niangara ñu ngi lay nuyu di la ziar nuyu naa la waa tabarakallah alxaaji Mor di kontaan loolu nag ci dalal gi ñu dalal di la ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm yàlla doon la sutura yàlla doon la teraanga ndax ku baax nga nag ñu ngi lay bu baax a baax a baax macha allah Serigne Mohamed Niang jërëjëf mbokk yéen ñi doon topp ci Ali Imran TV tey ñu indiloon leen Serigne Mohamed Niang bu Parcelles Assainies macha allah mu jàng fi njàng mu neex mi nga xam ne jàng na ko fi ànd koog mbokk yi nga xam ni ñoom la àndal ñëpp macha allah ñu teew fi tey àndoon ak yéen doon leen bëggal ci émission bi di nuyu mbokk yi nga xam ni jaar nañ ci yoon wi ba agsi ku ci mel ni Ibrahima Diop ak euh, Serigne Bàcc Jaaxo di nuyu kilifa euh, barab booba di Serigne lay Diop di nuyu mbokk yi ñëpp rek di am mbégte kontaante ci di daje ak saasu ne di leen wax ne rek seen mbégte rek la ñuy sàkku incha allahu rabbi dañ leen di jox rek euh, dig daje incha allahu rabbi ajjuma bii di ñëw ci beneen invité incha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bisimilah nga def ñaan rek. ah Alaaji Munir defal ñaan. Alaaji Munir defal ñaan comme ni nga daan defee rek. amiin yaa rabbi amiin amiin amiin. allahumma amiin amiin yaa rabbi. amiin amiin amiin. allahumma amiin. enough.